yaa gën a ndaw ci euh, candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo jëm ci présidentielle yu dimanche yi euh, comme quoi que vous êtes le plus jeune candidat des élections aujourd'hui dañ ngay dégg ngay wax ni euh, sa candidature c'est la candidature de la jeunesse est-ce que tu penses réellement que la jeunesse s'identifie à toi déjà li ma <clears throat> ñi ma àndal ñëw ci émission bi rek wane na ko donc ay jeunes yu yu bari yu xarañ laa àndal euh, ñi may suivre aussi ci campagne bi xam nañ ne fu ma dem jeunes yi ñoo may accueillir même bu fekkee ne li ñu wax depuis le début ne dañu bëgg dundalaat yaakaaru ndaw ñi mais dañu bëgg dalal xelu mag ñi mag ñi aussi euh, ñoo ñuy gunge bu baax euh, am nañ yaakaar bu rëy ci ñun ci Sénégal bi nga xamante ni moom lañ bëgg ak bi nga xamante ni moom lañ bëgg a tabax donc euh, pour répondre directement la question effectivement je pense que candidature bi jeunes yi ñoo ko bëgg ñoo ko taxaw ñoo ko porteel seen bopp et on était 268 personnes yu demoon DGE jëli fiche tey ñaata ñoo ci des dix 18 Je pense que y a un énorme travail qui a été fait et ce travail a été porté par les jeunes. ma leen di remercier d'ailleurs parce que maa ngi nii tey bi may mujjee jokkook euh, euh, réel ñoom Fatou Abdou je pense que maa ngi Fatick la mu fekk et il faisait dix-huit heures euh, ma ànd ak ñoo xamante nii bi campagne bi jotee ñu ci bari dañu poser ay congé jël ay congé c'est des jeunes ñu ci bari bàyyi seen famille yi bàyyi lépp lu ñu doon def ànd ak ñun partout au Sénégal foo boo demee da ngay guddee tëdd da ngay teel a jóg parce que doo am yenn saa yi hébergement bi du du jàppandi trop ngeen ni rencontrer beaucoup de difficultés donc yéene boo pense que ne ndaw moo ko mën taxawaay boobu ndaw moo ko mën réew tam ndaw moo koy tabax te sunu réew fi mu ne nii ni mu tëddee ak ni mu bindoo euh, Nafissatou bu ko ndaw ñi defarul rek xaw ma kan moo koy defar. et justement qu'est-ce que euh, euh, rubrique am déjà <laughs> pareegul. <laughs> mais beneen bi mooy ci li mu doon wax léegi ma profito ci aussi euh, massaw bu baax waa Isbu Tarxiya ci al Mouridia bi nga xamante ni moom moo lakk noonu tey euh, incendie bu metti donc euh, yóbbu seen matériel bi yëpp ñuy def liggéey bu am solo rawatina ci weeru koor donc maa ngi leen di massaw bu baax di ñaan aussi en de pareilles circonstances fii la ñuy soxlaa état nag bu privé amee jafe-jafe fii ngay soxlaa état Ah, donc je souhaite vraiment que ñu taxawu leen jàppale leen euh, matériel bi yëpp moom moo takk moo lakk te il font un travail qui extrêmement colossal maa ngi leen di massa bu baax di bokk ak ñoom aussi euh, métit bi Aïcha Khady euh, la blague du jour xam naa dañ koy bàyyi ba suba rek incha allah j'en profite pour remercier Vision Coiffure by Philly pour la mise en beauté et Astor pour la très belle tenue. très jolie Yacine ñu koy nuyu bu baax. merci Nafi. jërëjëf Euh, rendez <laughs> demain incha allah alors tout à l'heure Mouhamed Fatima laa waroon a jox tout à l'heure donc su ma jógee ci Fatima ñëw ci yow ah, mais euh, euh, et j'ai une question man sax par rapport à candidature de la jeunesse boobule Pape Djibril honorable ñu gis ni que jeunesse bu bu Sénégal régime yi fi jàll yëpp dafa am problème boo xamante ne ba tey mënuñu ko résoudre mooy émigration clandestine ñu gis que nguur bi fi nekk sax en place ñoom def nañ ci ci li ñu wax jéego yu bari mais tey la gën a takkarnaase tey lan ngeen foog ni moo wax a nekk solution boo jëlee ko fi euh, ba fa wala sax ñu wàññi ko drastiquement hmm, jërëjëf Khadija euh, day day duggante question euh, le saoudien du <laughs> <laughs> du plateau <laughs> Mohamed euh, question bu am solo la. Mhm. encore une fois li ma wax rek euh, mooy que réew moom soo ko bëggee taxawu ci ndaw ñi nga koy nga koy jaarale soo ko bëggee taxawu su dee yow lañ ko dénk tamit foog nga xam ne ndaw ñi foog nga taxawu leen. émigration clandestine li ko jur wax nañ ko léegi. moom mooy ñàkk xëyu ndaw ñi ak ñàkk bi ñu ñàkk yaakaar ci réew mi te bari na tey ñuy jaar ci géej gi yenn saa yi ñu faatu wala lu ci ëpp sax di faatu dem naa benn keroog bari ñi famille Wadden ma leen di masaw koñ boobu deux cent gaal gi deux cent soixante huit personnes ñoo ci jóge ñoo ci dem ba tey xamuñu fu ñu nekk kër gi ma duggoon lu mu gàtt gàtt nee nañ ma treize personnes jóge na fa. ba tey amuñu ci benn information gisuñu état gisuñu dara kon drame la boo xamante ni jar na ay états généraux jar na ay assises jar na lu ne pour mu jar na commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale pour convoquer et c'est ça le rôle des groupes parlementaires demander aujourd'hui à l'Assemblée nationale de convoquer un directeur qui serait impliqué directement un ministre qui serait impliqué directement tey jii boo demee dans les autres pays du monde ngay gis ne directeurs yi dañuy wàcc ba gën a fa gis nga bërki démb en France Cyril Hanouna bi jiite TPMP moom la assemblée nationale eh, kii euh, euh, auditionné ñëw déglu ko donc képp koo xamante ni assemblée nationale dafa am doole boobu képp koo xamante ni jàpp na ne mën nga leeral li nga xamante ni xew na ñoom dañ lay convoqué donc ce qui se passe avec euh, l'immigration clandestine c' est les choix économiques yi nga xamante ni moom lañu def ci géej gi d' abord parce que tey jii boo jëlee gaal gi ñiy dem ci gaal gi bon malheureusement man mënuma dawal gaal yow mënoo ko dawal Mouhamed du ko dawal ki daan dem ci géej di wuti jën amatul jën nan lay def ñooñu ñoo dem ba am ñeneen ñu ci dugg muy ñu tuddee leen ay pass ay passeur ñu taxawal benn business boo xamante ni malheureusement c' est terrible di jël ay ndaw yoo xamante ni ñàkk nañu yaakaar totalement ci seen réew napp dajeek nappkat boo xamante ni amatul yaakaar ci géejam dafa mel ni baykat buy xëy di dem tool te tool ba amul dara moom nappkat buy xëy di dem géej te amul jën te bakkanam man ndax géej amul bànqaas xam nga bu dee tool sax di nga ñibbisi mm-hmm. mais géej amul banqaas ñuy dajeek ay saxaar lañ ko tuddee mooy les navires de pêche étrangers mm-hmm. ñu leen di mbëkk sonal leen pêche artisanale bi ñu rey ko complètement loolu nag ñi ko def mooy ñi defoon licence de pêche yooyu jaayoon ko moo jur lii donc ñun li ñuy njëkk a def bokk na ci licence yooyu ñun dañ koy dakkal yi nga xamante ni aajo woon na renégociation ñu renégocier ko mais li ñu gën a bëgg mooy l'une de mesure fortes yi nga xam dinañ ko jël mooy quand même permettre suñu géej à travers ay repos biologique permettre suñu géej mu mën a dundaat permettre suñu géej mu loolu moo tax bi ma demee keroog kii la fédération nationale pour une pêche durable ali euh, coalition nationale pour une pêche durable aw moon jafe-jafe pour signer seen charte bi totalement dama ko signer sans réserve def inventaire du pavillon sénégalais ba xam yan navire de pêche ñoo nekk ci ñoom ñoom la doomu réew mi moom wala ndax am na ay doxandeem yu ñëw nëbbatoo Mouhamed Diop mi sénégalais tudde ko kii bi jox ko navire bi ne moo ko moom te moomu ko donc ñun l'inventaire du pavillon Sénégal dañ koy def totalement def ay investigation sax yu gën a xóot ba xam yi quels sont les navires de droit sénégalais et quels les navires qui sont effectivement sénégalais donc loolu boo ko defee ci émigration clandestine bi déjà nga téye li nga xamante ni moom mooy sa géej rien que dans la pêche les premières années mën nga ci créer ay milliers d'emplois ñun décompté nañ ci pas moins de vingt mille emplois yoo xamante ni mën nañ ko créer dans les deux premières années de notre mandat donc à mënoon naa ci dugg ba mu sori. Mhm. Euh, ci système bi ñu am parce que léegi navire de pêche yi ñëw dañuy ñëw am seen système mu congélateur ci seen biir. léegi boo demee port bi tey te je parle sous le contrôle de tout le monde boo fa demee liggéey yi nga xamante ni sax sénégalais yi ñoo ko doon def les jeunes sénégalais léegi turcs yi ngay gis ñu koy def ba ci tricycle yi ñoom ñoo koy dawalal seen bopp léegi lépp écosystème bi yëpp léegi ñoom ñoo ko bëgg def.